mu éclater faire éclater la vérité gynécologue bi dafa éclater complot bi ñuy xam dañ koy tudd ci cas bi léegi na na nañ ci Sénégal que ne Macky Sall que ne juge Maham Diallo ni dañoo bëgg atte dëgg ndax bu ñu bëgguloon atte dëgg du gynécologue bi docteur bi nga moom moo xool Adji Sarr mu ne Adji saar kenn sëyul ak moom Adji saar ba ñu xoolee awraam kenn siifu ko amul sax mën yu amul dara amul xotteeku ngeen baal ma amul lenn lu wane ci yaramu Adji saar ne dañ koo tëddee Ousmane Sonko dañ ko tëddee kon loolu rek wane na ne Sonko am na ndam waaye yëf yi yemu fa ndax man Pape Alé Niang laa daan seetaan mu def ci émission doy waar ndax papa ali Niang ñëpp xam nañ ni mom mo ñu jëfëlon breaking news ci PV sama xarit Mamour Diallo gay sama xarit Mamour Diallo dañ ko tudd ci mbir mi encore vraiment amna luma nak rek naqari trop gis nga tay sax asaman ci du mel naaj bi génnul il fait gris amna luma metti ndax sama xam xarit Mamour Diallo man dama koy yàgg défendre maanaam dama koy yàgg jàppale wax ne ah man de Mamour xamewuma ko lu bon xamewuma ko complot waaye tey bu ñu toogee ñu tudd Goro Mamour jàlloo Gabi Sow man je le connais Gabi Sow xam naa ko Mamour Diallo sama xarit la seet naa Mamour Diallo bureau fekk fa Gabi Sow Gabi xamante nañu bu baax Mamour Diallo dem naa Louga luga fekk fa Gabi so, wala wala Tiwaawan Tiwaawan bi sax woruma ndax Tiwaawan Mamour fay def ay gamu xam nga man loolu la xamee Mamour Diallo defar ay gamu ma dem fa mu ray ay gelem ray ay nak, man loolu la xam teral nit ñi ñaari fan kari di fess del di wacc ku ñew lek taalibe yi ñëpp Louga Tiwaawan waaye tey bu ñu déggee Gabi so bi nga xam ne Pape wax nañu te loolu waxon na la ko Gabi moom moo takk doo rakku Mamour Diallo bi nga xam ne comme doom ci moom ndax Mamour Diallo moo ko yar kon Gabi Sow nekk avocat Mamour Diallo di liggéey Mamour Diallo Gabi Sow yàgg nañ ko ci dégg ndax plainte bi plainte bi dañ ne woon Gabi Sow moo ko bind George Diagne maître bi nga xam ne dañ ne moom mooy soxnay ministre de l' intérieur Antoine Diome dafa bindoon plainte bâtonnier des avocats mu ne Gabi Sow la Gabi moom it mu bind plainte mu ne maître Dior Diagne la waaye tey dafa mel ne Gabi moom lañu wax ne moom moo bind plainte bi yëf yi dafa doy ndax docteur bi lu lëndëmoon lépp daf ko leeral li lëndëmoon lépp daf ko leeral lan lan moo lëndëm li lëndëmoon mooy kan moo woo docteur lan moo tax docteur bi ci boppam dem seeti dem jëli ji Adji Sarr nit kay buñ la siifee xanaa dañ laa war a indi hôpital waaye Gabi Sow moo woo docteur bi balaa dara di xaw balaa dara di xaw woo na docteur bi ne ko pareel dinaa la indi benn xale bu jigéen boo xam ne dañ koo siif si suba si mu woo ko mu woo ko mu dem jëli ji Adji Sarr waaye Alfousseynou Gaye docteur la bu muus boo xam ne Gabi ba mu ko woowee xëy na Gabi fayu ko xaalis ne ko lii laa bëgg dama bëgg nga fen dama bëgg nga bindal ma certificat médical bo xam ne dañu wane ne Adji Sarr dañ ko sif dama bëgg nga defal ma ay prélèvement manam nga jël am lo jël ci awrab comme ça ñu xol ko takkal Ousmane Sonko dafa ne ko rek xolal ma xalé bi ndax dañ dañ ko violer yaakaar na bu waxé lool rek docteur bi momit dina fen waye docteur bi c'est un docteur professionnel bu fennon dañ koy dak dañ dootul mëna nek docteur fen motax ba Adji Sarr mom nee liko ci jaxal ba mu jëli ji Adji Sarr Adji Sarr kunko kuñ ko kuñu kuñu siif ndax suite Beauté la ko jëli ji Sweet Beauté la ko jëli ji Sweet Beauté ba mu demee Sweet Beauté Adji Sarr di ree Adji Sarr nekk ci jàmm ci la ne kii daal nduruwuma kuñu ñu siif ba mu awra gisul benn lu wane maniwu ngeen baal ma président Sonko wala maniwu beneen góor gisul dagg-dagg gisul dara lu wane ne xale bi dañu sëy ak moom ci juróom ñeenti waxtu ci guddi ba ñeent waxtu ak fukki minute juróom ci si suba si 9 heures du soir jusqu'à 4 heures 15 wanewul ne Adji Sarr dañoo seyt moom. kon loolu leer na ne Gabi Sow bu fekkee ne li Alphonsine Gaye wax dëgg la Gabi Sow moom moo comploté léegi Gabi Sow est-ce que moom moo jël ci coobare boppam mu def li mu war a def mu def lu muy def wala Mamour Diallo moo ko sant loolu moo jara wax ndax Mamour Diallo moo ko sant wala Gabiso moom moo xool rek ne dafa bañ Sonko ndax Sonko ñoom dañoo jàpp ne Sonko moo dàq lu Mamour Diallo directeur des domaines ndax Sonko moo ko fi ji 94 milliards. est-ce que Gabiso moom moo jël ci coobare boppam man boo ma laajee bu njëkk ba loolu laa doon dama ne ah aw ma preuve waaye depuis sama xarit bañ koo ko génnelee audio 18 minutes moom ak aji Sarr mu naan aji Sarr. ah dama am contrat moral ak yow mënuma la wutal passeport tant que tribunal bi demuñu tribunal toogal ñetti weer di wax Adji Sarr dinaa la jàppale li ma la mën a jàppale sama doom laa la def bàyyil tëb bul daw ci laa ne nag kon Mamour Diallo sama xarit dugal na ci loxo man maa Mister Shake man du ma naafeq man maay njaagu sookoo man maay njaagu sookoo te Sénégal laay jiital Mamour Diallo nag sama xaritu benn bakken la chaque jour ma wax ko bu baax la waaye nit la rek nit bu def erreur erreur bu mag la def dégg naa nag mi ngi màkk dem na màkk bu demee màkk na ñaan yàlla mu baalu yàlla yàlla baal ko ay bakkaaram waaye nag li mu war a def mooy mu ñëw mu baalu sénégalais yi bu fekkee ne li mu ci dugal loxoom lépp lu mu ci taqee Mamour Diallo na génn mu ne maa def lii maa def lii maa def laa mu baalu àqa quatorze morts yi bu bu ko leeroon ne bu dugalee loxoom ci jéem a fayu fayonte Ousmane Sonko dëkk bi dina tàkk Macky Sall ndara ñàkk nguuram fukki nit ak ñeent ñàkk seen bakkan ñu bëri ay téeméeri nit laago maanaam ñu dagg seen loxo wala ñu am ci ay gaañu gaañu Mamour Diallo bi ma xam tuddee ko doom tuddee ko doom bu doon bu ko leeroon na yëf yi nii lay demee du du ci dugal loxoom. soo waxoon naa leen ko. man ba ma déggee Gaby Sow di xëccoo moom ak ah, Dior Diagne yaa bind ak binduma plainte ci laa bàyyi audio Mamour Diallo ma ko ah Mamour loolu yàgg na xanaa léegi mot ñaari at ci laa ko bàyyil audio ma ne ko Mamour ah li may dégg jaaxal na ma Gaby Sow moom la ñuy wax ne moom moo bind plainte Mamour bu dee dugal nga sa loxo ci yëf def nga erreur Mamour xameewu ma la fayantu man maa ko bàyyil audio WhatsApp Mamour Diallo man maa ko bàyyil audio WhatsApp ma ne ko Mamour bu dee dugal nga ci sa loxo def nga erreur bu mag man bu dee Ousmane Sonko moo la tooñ nga ne da ngay toog moom ba lii dal def nga erreur mais Mamour tontuwuma sama xarit da ba instant bi may wax ak moom gëj naa gëj naa wax ak moom defe naa tabaski laa gëj a wax ak Mamour Diallo xam nga tabaski mais bëgg naa ko bàyyil message mais xaw ma sax ndax dina ma am na sama jot ndax xam naa ne fi mu nekk nii Mamour Diallo mu ngi ci problème Mamour Diallo nelawatul Gabi Sow nelawatul ndax ñu ngi dégg ñu naan dañ leen war a woo tribunal ah ñu bari ñu ngi naan Macky Sall ñom ñom ñoo bëgg sétal Ousmane Sonko ah motax ñu génn audio Mamour Diallo pour jël lepp ñu sëf ko Mamour Diallo lu lay ñu koy wax kon Mamour fu nekk ni jaaxle na xam nga dégg sax ba muy wax Adji Sarr nañu sant Yalla ñun suñu bakkan sax mënon na ci dess ci yëf yi ndax Mamour taaloon nañu kërëm Mamour songoon nañu kërëm ba wa koñ ba génn di défendre la mo taxoon wa koñ ba di défendre parce que lu baax lañ ko xamal waye tay buñu toggé dégg Gabisso ah nekete moom mooy le cerveau du complot gars il faut pas ñu ñu ñu nek fi di nëpp nëppal complot complot la waaw mais nak xeyna ñom ñoom ba ñuy def complot xamuñu woon ne lay démé xamuñu woon ne gouvernement bi da koy récupérer ba mu dem ni Macky Sall nak vraiment ñu ngi koy gërëm ci ben côté ndax juge bi juge bi Macky Sall jël Macky Sall tagu ko pression bu ko tegoon pression day jéem def lepp pour takal Sonko lepp lu nara bax ci Sonko ku mel ne ju euh, docteur Maham Diallo du ko woo mais Macky Sall dafa mel ne dafa bëgg dëgg bi feeñ kon loolu ñu ngi ko ci gërëm ñu ngi gërëm Antoine Diome man nee naa la Macky bu defee lu baax dama koy wax élection yi maire yi bañ ko bañu ba ñu ko organisé bu baax Antoine Diome moo ko organisé mu baax amul bulletin yi manqué wul dara ñu gañe leen ñu nangu bii tamit dafa mel ne dañoo bëgg dëgg bi feeñ ngir ñu avancé Sénégal gagné na coupe d' Afrique Sénégal gagné na coupe du monde Macky Sall yàlla bëgg na ko ci benn côté kon ñun li ñu koy wax rek mooy na gën a continuer juge bi na gën a continuer même Pape Alé Niang sax mi ngi koy wax mi ngi naan juge bi ma gis juge bi ndara àtte dëgg la ñu lii lañu bëgg Sénégal jëm kanam Mamour Diallo ñu mu baalu Adji Sarr mu baalu xam nga Rwanda moo gënoon métti huit cent mille morts lañ far lañ fa téemé ñetti juróom-ñetti téeméeri nit junni nit juróom-ñetti téeméeri junni nit lañ fa rey taxul Kagame bu mu ñëwee dafa baal ñëpp ngir ñëpp nekk benn Sénégal Mamour jàlloo lu mu def na génn man da loolu laa koy diggal waaye di génn Maître El Hadj muy gën saaga nit ñi di génn Adji Sarr muy gën a saaga nit ñi loolu da koy gën a enfoncé sama xarit la nag dinaa ko jéem a woo jéem a wax ak moom jéem ko xelal li mu koy xelal te j'espère que dina ma déglu j'espère que dina ma déglu xam nga ma wax ko li mu war a def li ma war a wax ndeg moom nag bi mu ko wax fii waaw mais vraiment lii lii lii moom vraiment dam ko dégg mu metti ma trop nga xam ne sama xarit mi ngi ci tuuta lekkatul naanul xam nga famille am xam naa ne jaaxle nañu ndeysaan waaye nag nattu la nattu la te nañ nañ xam na rek euh, yàlla moom moom mooy teg nit nattu yàlla nag bu la tegee nattu nga nga juum da ngay génn nga baalu sénégalais moom boo baaloo dinañ la baal gars yi like leen partagé leen abonné leen Mister Shake la ba beneen ñu defal leen vidéo vive le président Sonko vive le Sénégal vive wu askan bi merci